Sénélec. Hmm. voilà. doy na waar. nommé ko ki nga jëlee Sénélec. Hmm. Seydina Kane nga dem nommé ko su conseil chargé de l' énergie. exact pour que nga bàyyi ko foofu DG Sénélec. Hmm. pourquoi nga ko fay jëlee. dafa am loo xam ne amul cohérence Pape Dieng fa la doon liggéey te problème bi yëpp yi am yëpp nga gis euh, euh, jabar ji nekk ci communication ba. ah. Hein? Hmm. Euh, jàllo moo fa nekkoon mu ne ko jox ko joxal marché communication yi sama jabar kooku bañ jëlee na fa jàllo communication. Hmm. mais Sénégal ci crise la jëm. Hmm. loolu c' est it nekk xam nga loolu lay dëgg aussi. il faut qu'on se dise des vérités parce que ñun ba ñuy fal Macky Sall faluñu ko woon parce que dafa ñu neex faluñu ko woon parce que sénégalais yi faluñu ko woon pour loolu dañ ko faloon parce que dañu attendre moom des ruptures. ruptures yoo xam ne pour qu'il y ait une république sérieuse moo fa wax gouvernance sobre et vertueuse. Mm-hmm. gouvernance sobre et vertueuse cela commence par qu'il poser acte yo hein? mm-hmm. ça colle avec esprit bobo, mm-hmm. mais il y a des nominations qui laissent à désirer et puis y a ñàkkul compétence il y a ay compétence compétences, compétences ngi fi tey dit le premier problème le plus sérieux pour Macky Sall c'est erreur de casting pour son gouvernement et puis dafa am loo le coup euh, euh, il fait comme Watt, wax Jojo traumatisé. ça veut dire que même bu bëggee doon remanier. Mhm. mi ngi xalaat sénégalais di wax ne moom nag doomu Ablaye Wade la ndax Ablaye Wade da doon remanier. di di ko compter alors que nag bu doxul. Mhm. da ngay da ngay da ngay làmbatu feneen. Mhm. tey jii quand on dit que au niveau de a des problèmes. mais Sénégal c' est pas Amadou Kane li Idrissa Seck wax tamit c' est pas totalement faux. tey jii xam tey problème mu Macky Sall. xam nga Ablaye Wade mu neex la mu naqadi la. Euh, amoon na objectif moy tabax ay infrastructure ay tëleem mak ay échangeur mak yoy mm-hmm. projet la won mm-hmm. tey jii lan moy projet Macky Sall. bok xamé wax ma. day tatoné day lamb fi lamb fi danaka dal lu yëngatu di metti rek mën xaar ma jëm ko fajj mm. mais vision économique les entreprises sont en train de fermer. Amna, parce que moom bu demee ba le premier ministre am les entreprises qui sont en difficulté C'est il est c' est vrai que am na des entreprises difficulté hmm. entreprise yaa ngi fa aujourd'hui qu'est-ce que fait le ministre de l'économie des finances tu ne le sens même pas hmm. alors il y a des personnes compétentes des jeunes qui pouvaient être ministre de l'économie des finances hmm. il y a une de je n'ai rien contre le premier ministre euh, mais quand même est-ce qu'il fait l'affaire est-ce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ça veut dire que li mal sénégalais est ce que gouvernement ministre extraordinaire du gouvernement pas extraordinaire compétent vraiment. parce que euh, parce que Benoît Sam mu taxaw di responsable politique mais aussi c'est quoi. ci télé wala di wax nga déglu MRV mm-hmm. maîtrise son dossier. ah bon? ko lim mm-hmm. et il est tombé dans le piège de la coalition. Mhm. mais faut la... falaat les gars mhm. hein. Mhm. moo koy gars et puis est-ce que aujourd'hui les lits ne bougent pas et tu vois il y a tellement de compétences. parce que je peux citer des noms mais Mamadou Lamine Ndoum, il est là. Exact. Moustapha Diagne il est là. Et il a une fi Moustapha Diagne qu'est-ce que le rien du tout mais je UG toog jox ko bureau mu toog. Hein donc ça veut dire qu'il y a des compétences mais il faut qu'on arrête dans ce pays. vraiment de dugal ay calcul tant que di jël ay nit. Mhm. parce que dañuy calculer parce que dañuy def lii du dox. Mhm. réew mi nañ ko yor ngir mu doon njariñu Sénégal. Mhm. njariñu Sénégalais loolu la ñuy xaar rupture yooyu la ñuy xaar dañuy wax ne c'est le président le mieux jeune. dans l'histoire politique du Sénégal avec 65 mais c'est le président qui a marché sur 13 cadavres pour se faire élire. Il y a eu 13 morts avant, avant qu'il avant qu'il ne soit élu. Donc ça, il faut que 13 morts, il y a ñuy

bu nekkee ne dañuy doxal yoon rek. Mhm. képp ko ana Aminata Niane. moom laa fa laa doon ñëw. Cour des comptes de épinglé na ko. Mhm. Macky Sall ko recyclé def ko xawma lan euh, kii tey jii mooy président conseil d' administration bu AIBD. nañu waxante dëgg aussi. Cour de comptes da ko épinglé du man maa ko épinglé du kenn da ko épinglé. Mhm. na dem justice na doxal doxal foofu. bu ko dawalee ba gis nga nag Seydina naa la wax leen de. yoon yóbbu dina jib fu ñu ko féetewul woon de. bu ñu ko xam am na xam nga yaa ngi wax CREI mais nag bi mu wax ne pour ñoom la. ba hmm. xam nga office national de lutte contre la corruption. boobu mu créé boobu. waaw xam ko créé ba pare dugagul ci dugalagul membre yi ba tey. Hmm. ak ak rapport scientifique ko tegee yi li yoree fi mu nekk nii réew mi. ak rapport wax ma rapport scientifique sax boobu ñëwagul. Hmm. mais dama la bëgg wax ne OFNAC pour ñoom la nañ jël OFNAC yóbbu ko port. port bii may dégg nii toj toj ma fay jox nañ ma ci benn dossier dinaa la ci ñamal. Hmm. naa la jox ci dossier bu garaaw scandale yoo xam ne lim di ah, maa ngi tuuti kay. <laughs> waaw non non mais loolu loolu liggéey. donc c'est des scandales. Hmm. yoo xam ne am na marché gré à gré ministre de donc CREI boobu man mënuma d'accord bu nekkee pour ñëpp la pour hmm. leeral rek. ñëpp nañ topp ñëpp nañ war a topp. bu ñu toppee nag tu es présumé innocent. du dëgg. waaw ñu respecter droit de la défense. commission bi def liggéeyam bu ñu justice. justice bu la setalee hmm. nga dem hmm. te nag man dama jàpp sax ne ñi ñuy tuumaal hmm. dañu am ay ambition politique ñoo gën a war a mën a yàkkamti ñu setal seen der parce que nag Seydina ñaaw na ci der nga yor topp ñu la ñëpp xam ne yow vraiment li nga yor di jaaduwul parce que mënoo fee nekk en douze ans multimilliardaire te ñu xam la barki dem moo jaay ba ngay egg ci au du dëgg waaw loo gën a xanaa nag yow yaa gën a bëgg setal sa der pour ëllëg ak tamit boo bëggee wax sax ay ambition. Hmm. mais tey jii kun fi setalul der boo wax man man rek dangay wax kii sàcc la. mu hmm. jeex tàkk. Hmm. Sénégalais yi xam nga parce que yaay dëkk ak ñoom ñu xam la nga am benn train de vie boo xam ne yow mënoo ko justifier. nga ne da nga am ay ambition politique. doy na waar de. ah day doy waar aussi nag. réew mi il faut qu'on xam nga tey jii bu ñëw tax ñu di wax ne sàccu ma sàccu ma sàccu ma. ah mais est-ce que jaadu na. nit yor fi benn train de vie boo xam ne yow da nga koy xool di wax ne mais kii fan la war a mën a jëlee xanaa dafa am garab xaalis bu muy witt ci biir këram. moo jaaxal ñëpp. mu dem nekk aussi. foo ko nar aussi ñoom tamit di victimiser wu les sénégalais sopp sénégalais waxuñu ñu tëj dañ ne neen càmbar. lu la reddition des comptes fépp la bokk. parce que nag. mais ñu doon dégg mais dama ne la Dakar suuf amatu fi. ni ñu doon dégg nii pasar pasare xaalis réew mi ak suuf réew mi. mais loolu foog ñu leeral ko. c'est pas une affaire de Macky Sall ça c'est une demande sociale ah. bu ci Macky di retourner mom ci mom la ñuy jëm. yow arrestation Karim Wade yaa ko don xaar. ah waaw man taxaw naa ci télé bi ne bu ñu jàppul Karim bu ñu jàpp kenn. Hmm. parce que li jaar ci ay milliards ci loxoom dafa bari bi. Hmm. voilà. mais est-ce que waaw oh, d'accord mais est-ce que tey jotul jotul nag ñu ne inculper Wade ou bien libérer les autres parce que bu ñuy xool Aïdara Sylla ay Ablaye Wade da ko yónni woon bu ñuy xool Thierno Ousmane Sy. Ablaye Wade da nga ci ginnaaw Karim Wade Ablaye Wade da nga ci ginnaaw. Seydina man bañuma ma loolu de. Mhm. bañu ma loolu. mais y a une plainte contre Wade qui suit son cours à Paris même. Mhm. parce que xam lan mooy paradoxe bi. Mhm. <laughs> da ngay gis kenn ko koo yóbbu fële euh, CREI. Wade dama may. peut <laughs> être pourtant dossier créé may may bokk si. wa dégg mu ne Wade dama may. nga dégg ñu ne Wade dafa amone ay bor ba Samuel Sar moko wara fayal. waaye kuy maye dina am bor. ah dana war de. <laughs> ah déglu li ma la wax rek. Mhm. ay dara si la ay chèque la doon pour fay ay bor waa Ablaye Wade. Mhm. loolu lañ ñu wax. waaw Samuel Sarr ñu am na ku koy waaj a waat porte plainte sax pour 700 millions yoo xam ne Wade dafa jëloon bor. Mhm. mu war koo fay. donc kuy xanaa doo ami bor. yaa ngi dégg pare boobu ñu ne Ablaye Wade am na ku mu yoroon xaw ma 230 millions xaw ma. waaw yaay oto. bu doon luye. non am na loo ne cohérence rek la bëgg man su ma demee bay je suis du ma yoroon bor hmm. ah, ah. donc ne peut pas être blanc comme neige et il faut qu'on arrête de nous dire que oui un président non attends Jacques Chirac fut un président Nicolas Sarkozy hmm. ah, donc nag nañ bàyyi quoi si soit on est dans une démocratie normale hmm. on est dans une république on est dans un pays qui fonctionne de manière normale ou on est ailleurs ça c'est important

yow mi nga xamante ni nekk nga Sénégal yàgg ngaa dalal ministre de l' agriculture sa émission moom mën nañ ko ci jox euh, benn félicitation. Mm-hmm. parce que euh, daaw moom. Mm-hmm. nu mu jëlee xam nga il est arrivé mois d' avril. Mm-hmm. d' abord il fallait régler le problème des vivres de soudure. def na ci ay jàngu ay jéego yu rëy. semence def na ci ay jéego engrais def na ci ay jéego. commercialisation bi def na ci ay jéego man mi def naa émission. waa CNCR ñëw ma ne leen daa ngeen yuuxu est ce que ren yuuxu leen ñu ne ren baax na. ah donc ça veut dire que man xama nga baykat mom je amee coow mom kenn du ko coowal moo koy coowal boppam. yàgg nañ fii dégg problème mu bon impayé. E. Mhm. ren dégguñ mais nak toujours que il faut avoir une vision de l'agriculture, quel type mhm. d'agriculture nous devons avoir. Mhm. est ce qu'il faut aller vers l'autosuffisance Quel quelle politique agricole mettre en place. parce que c'est n'est pas du ay taf yëngal. régler des problèmes de campagne c'est n'est pas ça. C'est avoir une vision dans la politique agricole. C'est là où on attend un président. du deug la mais du ji jënd na dëkk du nonu L'autre pour le moment. Et puis il y a un problème de fond qui mm. risque d'être une bombe. Mm-hmm. C'est quoi C'est la mm-hmm. réforme foncière. En mm. nga instant bi waa CNCR un certain nombre a benn campagne. Mm-hmm. sama ça sama dund. daanaka ils ne sont pas d'accord. tu ne peux pas mettre une commission de réforme foncière dirigée par M. Doudou et d'autres paysans, paysans, paysan doo ci boole organisations euh, organisation paysanne. Ce n'est pas possible et puis ce qui se passe aujourd'hui c'est un un scandale tu vois des investisseurs étrangers venir ñëw ci une localité comme Nguith par exemple wala tu ñu ñëw tàggal ay hectares. Mhm. exproprier ay paysans yi nga xam ne loolu mooy seen dund. Mhm. jox ko un pays un peu qui mais ça loolu lépp dañ ko war fait waxtaanee. Mhm. mun ñu xëy suba rek exproprier ba nga xam ne ñooñu pour ñu liggéey sax gendarmerie mooy fay def cordon sécuritaire de leen war di leen protéger ça veut dire qu'on avec l'accord des, des, populations autochtones. Mm-hmm. Donc tout ça, c'est des problèmes sur lesquels on attend Macky Sall. Mm-hmm. Il a mis certes en place une commission de réforme foncière, mm-hmm. mais c'est une dénonciation, mais ce n'est pas normal. La commission peut exister, donc tu bois les paysans, donc tu bois les canadiens, ce n'est pas possible. Ça, il faut le régler. En tax ma euh, euh, bu campagne c'est la première année pourvu que ça dure aussi Hmm. ni ñu def daaw ñu mën ko continuer def. Hmm. voilà loolu daf ñu permettre aussi ñu mën ñëw pap arrogance bi nga xamante ni woon nañ ko ci nguur Ablaye Wade bu fi jóge woon. arrogance boobu ah commencé na. mi ngi ñëwaat bu baax a baax. déet waay. waaye yow tamit yow gis nga nguur <laughs> ah déglu ku mel ni ne Moustapha Cissé Lo di wax rek. waaw moom moom <laughs> moom moom dañuy xëpp kaani rek. nga dégg Mbaye Ndiaye taxaw di la wax ne si Khalifa Sall veut garder la mairie de Dakar. Hmm. Euh, il doit rejoindre la paire. Mais est-ce que loolu nekkul si nekkul si deretu libéral. bon je ne veux pas aller jusqu'à ce niveau mais je veux dire que arrogance bi déglu leen ñuy déglu leen ñuy wax sax xam nga hmm. tey jii soo le justifier salaire le problème par exemple le salaire des euh, des DG là dont on parle. Waouh, l'ordre de na est-ce que hmm. c'est décent man du ma sax dañ ko wàññi xam nga lañ wax ñoom. Uh-huh. waaw dama est-ce que c'est décent la réalité économique bu ñuy vivre Sénégal instant bi hmm. hein DG du FIFA 5 millions par mois net. Il y une indemnité plus de 25 millions mhm. hein, par année. est-ce que ça c'est normal C'est mhm. décent mhm. C'est la question moi, que je me pose. Je pose même plus. Est-ce que c'est normal de faire 5 millions Jamais. Hum? Je ne sais pas si l'observateur de 90 millions le gagnés à Pix. Je ne sais pas 90 millions de gagnés. Tu dis que PCA à IBD ah ñu jox 1 million 500 500 000 litres essence du 900 000 ah dëkkal ko ba paré mu nekk ministre conseil donc ci ci problème yo xamné c'est ak réew mi fu war ci compliqué aussi so may wax amna rupture aussi moi je m'attends que fop lay xara ay rupture mhm. que tout le monde serre la ceinture mais la population badolé waruñu serrer ceinture bi rek kon day mel day mel ronko ñu badolé moy woy ba tay di sim ci ray bour bu woor dama la koy wax ne mënuñu de serrer la ceinture. Mhm. De serrer la ceinture alors que ce qui ce qui ce qui arrive au pouvoir. pour nous, mhm. c'est ils ont déjà réussi il y a un problème il y a un problème. Mhm. voilà Pape en moins deux ou trois mois de la saison des pluies inondation yi mais ba tey gisuñu loo xamante mesure bu mesure de benn mesure préventive boo xamante ni nguur gi teg na ko ngir lu woon daaw du woon ren maanaam lu woon daaw il faut lu woon daaw Mais ni mais gisaguñ ko ba tey. c' est :fra que :fra xam nga foofu lan mooy seen problème